billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa salla allahu ala ashrafi alxalqi sayidi almursalina wa ala alihi wa asxaabihi wa man ittabiahum bi hudaahum ila yawmi albaasi wannusuur bokki jullit yi teewlu suñu jataay fu ñu mën a toll ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo rek di ñëw ak yéen ci suñu beneen tomb ci seen émission shukran bi ñu leen tàmm defal ci dakar midi point net Eh, bi fadilati Cheikh Alsane Sène taare yàlla yal na yàlla guddal fanam yàlla may ko wér te defal ko ngërëmal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di gërëmit képp ku ma bokk ak panel bi rek ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di jox ñëpp seen wàccuwaay eh, di ñaan yàlla koor gi ñu sóobu yàlla nañ ko jeexaleek alhamdulillahi rabbil alamin bépp bàkkaar bu ñu fekkoon ñu bijj ko ci yàlla ñu ko yàlla raxasal ba mu set te bañ ñoo toppati dara eh, mbokk tey nag suñu tomb ak wàkkirlu ci yàlla wàkkirlu ci yàlla mooy xam ne am na buur bu moom mënal la te mënuloo woon mu fexe ba nga am te amuloo woon kenn ci ñun xamul foo jóge waaye buñ fi jóge it kenn ci ñun xamul looy fekk njortu lu rafet rek ci lañ ko teg ak wóolu ne am na buur bu ñu sant mbir ne nekk leen ci defee leen ma ko nii ñu nekkee ca noona wala boog ñu nekkee ca suñ kem kàttan Euh, yàlla moomu moo wax ne law annakum euh, Seydina Omar lañu ko jëlee mu ne law annakum tawakkaluuna ala allahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayru taxdu ximaasan wa taruuxu bitaanan Seydina Omar ibnu alxataab radiallahu anhu daana wax ni bu kenn ku nekk ci yéen joxoon boppam dëgg-dëgg jox boppam yàlla ne ko daal yaay sama buur aw ma munuma li àddina di rëy rëy ak li muy xat-xat mënulu ma fi sama bopp loo ma defalul nee na kon yàlla dana wërsëgal kenn ku nekk ci ñun comme ni muy wërsëgalee picc mbokk yi picc ku ci taxaw def ci jàngat dangay xool grain bi nit ki lekk mu war a mën a soppiku man ni yu dem ci ruxumu jigéen doom juddu bi ñu ko sànnee ci àll bi bu la yàlla seetaanoon picc yi ñu lekk ko doom du juddu waaye ci coobare yàlla la dàqee picc yi watteel leen fa leneen ñu lekk loola bàyyi fa doom bi mu sax yàlla moomu picc amuti loxo picc amul atelier picc mënul métier picc mënta bay te loo bay bu ñoree moo la koy njëkk a lekk wërsëgu yàlla toll noonu moo tax dañuy wax ne ku siis picc ci mbay picc dana lekk loo du lekk yàlla rekk a mel noonu parce que wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ala jooju xarfu taklif la joo xam ne yàllaa ko gàddul boppam yàlla nee na képp koo xam ne maa la bind nga yor ay tànk di daw mbaa ngay baf nga walla ngay direeku sa wërsëg ci sama loxo la nekk délégué wu ma la ak kenn moo tax yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala ci ñeewante gum ñeewante jaam ñi daana ko sax wax yonent bi sallallahu alayhi wa di ko wax ni ko del dunde nii ak ñi nga àndal ci noo xam ne noonu la kilifa war a dunde ak njabootam nga xam ne doyoon na sëkk exemple ci li ko yàlla taggee ci alquran moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko wax ci alquran ni ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galida alxalbi lan faddu min xawlik faafu anhum wastaxfir lahum wa fi l fa ida azamta fa tawakkal ala allah inna allaha yuhibbul yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala mu ne bi bu dul woon yërmande joo xam ne am nga ko ci sa kanam saxaaba yi du ñu toog mukk wër la waaye bu la yàlla nattu woon it sa xol bi xat mënu laa xajoo kenn na la wóor ne wan nañ la gannaaw dem seeti leneen waay waay kaw yow yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ci def rëcc rëcc ci ñoom na nga ko jéggal mais bul yem ci jéggalul ko na nga leen jéggalul seeni bàkkaar parce que boo leen jéggaloo ma jéggal leen na ngay diisoog ñoom ci mépp mbir moo xam ne da nga ci dugg moo tax sidna alin daana wax ne atasaawuru wajhul huda sidna alin karamallahu wajhahu daana wax ni diisoo mooy jëmmi njub amul kenn kuy diisoo mujjee réccu waaye ku dul diisoo doo jóg ci réccu moo tax yàlla ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko neexoon ne décideel ñu def waaye daf ne ko del diisoo ak ñoom su ngeen diisoo ci mbir mbir ma dëgër kenn xamul yoon nanga ma wëlbati ko waccee ma ko man sa borom te nga wàkkirlu ci man ma orienté la teg la ci yoon teg leen ci yoon te yàlla kat nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna naka man yàlla sa borom day yuhibbul mutawakkiliina dama bëgg ñiy wàkkirlu wéer seen bopp ci man moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci xaddis mu ne bépp borom kër boo xam ne yaa ngiy génn di doxi aajo taxaw ci sa buntu kër ñaan lii ni bismillahi tawakkaltu ala allahi laa hawla wala quwata illa billahi nee na fegu nga ci seytaane fegu nga ci yee gaaraate ba kër ngay duggaat sa kër nee na li iblis di bari bari bari bari doole dootul man ci yow dara te loolu ñaan bu baax la mbokk yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ko bismillahi tawakkaltu ala allahi laa hawla wala quwata illa billah loolu dong so mbokk yi doyoon na sëkk kaaraange ci lu yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox bépp boroom kër wala bépp doom aadama mbaa bépp jullit ci mu di ko jëfandikoo pour mën a mucc ci seytaane ak yépp yi gaaraate yàlla nañu yàlla musal te musal leen yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu